mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah nuyu nañ ñëpp siyaar nañu ñëpp ñu ngi ci arène nationale encore ci nuyoo gi dañuy jéggalu ñëpp nañ baalu ñëpp ak waa Kër Boy ñaa waa Pikine ak lu làmb gi yëpp ñu ngi baalu ak warul woon demee noonu mais noonu la ko yàlla dogalee mais dinañ comprendre incha allahu rabbi booy Niang kontaan naa si li nga def yow ak ñu ngi jéggalu ñëpp ñëpp ñëpp. si ñun la dal mais liggéey bee demee noonu tax dafa am nu mu demee. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp les managers ñu ngi nuy toog gis ngeen tey ñu ngi ci arène nationale Modou Lo Ama Baldé coow li bëri na comme Iran Irak nañ ci wut solution balaa leneen di ci xew nañ waat xel yi bu baax a baax mbokk kii li ma di wax mooy ñi ñooy les managers ñoom ñooy wax ci li nga xamante ni moom mooy ci làmb ji ñoo encadré des lutteurs di signer seen i contrat as zal ba sama doom baay euh, kii sawru euh, Cheikh ndooy ñu ngi koy ziar kooku moom sama xarit la mais gis ngeen ñi journaliste yi léegi lii moo xew ci stade arène nationale dañuy jël ay barrière tëj leen tëj leen ci fii léegi pour nga bouger day metti pour nga dem ci cumikaay yi day metti waaye lii dañ si interpellé waa CNG ñu jàppale les journalistes ah si sama kàddu les reporters en ligne di yëngu ci làmb ji ci sama kàddu man maa wax loolu CNG ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale leen police bi tamit ñu yombal leen seen i liggéey loolu dañ koy ñaan ndaxte journaliste boo ko tënkee fenn rek day metti loolu mais lii lu baax la mais nañ leen di may ñuy génn di circuler ñëwaat dellu siwaat seen camp géewu làmb ji la ak Ablaye incha allah rabbi làmb la ñuy seedaan mbokk yi. voilà ñu ngi koy nuyu suñu nijaay suñu xarit suñuy euh, partenaire Thiam superviseur CNG gis nañu Modou Lo Ama Baldé toujours y a des difficultés face munul am ndaxte loolu dafa bokk ci làmb. ñu bëri ñu ngi tiit combat bi ndax li ci xew insécurité ay xeex jàppante yu kenn xamul est-ce que amul beneen méthode boo xam ne war nañ ko mën a def pour organiser face à face comme par exemple triplex wala yéen waa CNG yi nga xam ne yéen ay titalu làmb ñi ngeen waxtaan ci ak le promoteur. merci Maguette euh, maa ngi lay bu baax mais comme ni nga ko waxee rek làmb moom euh, ko ak coow ñoo Euh, lamb am na coow mais amul problème c'est des la yoo xamante ne bii solution toujours du ñàkk euh, face to face yi promoteurs yi dañ ko ci dugal te mu yàgg na am aussi euh, CNG nag di ko assister autorisé ko d'ailleurs. mais da yàgg na di am mais bi da cee rawa ah, bii comme guerre kenn comprendre. waaw dañuy jàpp ne rek acteurs yi. war nañu mën a wootee jàmm fexe ba nga xamante ne bii ñu dinañu dissiper yenn dinañu dissiper yenn tension yi parce que nag jaru ko fi sport kese la promoteur bi organiser face to face bi c'est parce que dafa bëgg a jaay combat combat boobu muy jaay nag moom mooy tax ñu mën a fay mbër yi donc sponsor yooyu parce que loolu mooy indi sponsor yi donc bu ñuy wax ne làmb dafa rafle sponsor je crois que Euh, acteur principaux yi mooy mbër yi nga xam ñoom ñooy bëree ñoom ñoo war a xool seen toogaay fexe ba ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy seeni i fans club c'est-à-dire que ñu communiquer ak ñoom communication boo xamante ne bii mais non seulement euh, la parole mais ñu joindre al ñu joindre ci acte bi fexe ba ñu wane ne effectivement lii foo rek la sport la d'accord kenn ko da ngay wuti ndam mais lu yàlla jox nga nangu ko xam ne lii la la yàlla jox. est-ce que waru leen jéem a xool waxtaan ak promoteur bi. ak les lutteurs ñu jéem a changer système de face à ñu def ko sax triplex au moins. mais bien sûr parce que boo gisee ne léegi euh, benn promoteur amatul droit def benn face to face seen woo ñaari mbër ak foo leen mënti woo te ñëwuloo ci CNG ba CNG autorisé ko ñu def benn avenant lu ci doolee ko bu ñu gisee ne effectivement am na ay problème parce que bu njëkk ba. daal nañu accepté nga organiser sa face to face sans autant sans pour autant que service du ñëw taxaw biñ demee ba gis ne am ay problème ci la ñu léegi imposer à que kenn mëntu def face to face te da nga dem indi sécurité ba pare loolu yëpp c'est pour bañ que ñu am problème léegi nag buñ demee ba loolu aussi tamit vraiment mu doon du jafe dinañu xool yeneen méthode parce que président Bira Sène li wétoor mooy moom du bañ la dara promoteur du bañal dara aussi leen mbër yi nga xamante ne bii ñoom dañuy bëgg combat wala ñu bëgg ñu jaay seen combat ba seen xaalisu sponsor mën a ñëw ci ñoom donc bépp moyen bu ñu mën a def boo xamante ne bii lépp dina rafet lamb gi ci boppam promoteur bi gi ci boppam mbëri gi ci seen bopp rek président CNG day accepté day day day day day accepté loolu da ci d'accord au contraire Euh, danañ leen ci accompagner aussi gunge leen seulement nag comme ni ko waxee ñu trouver méthode boo xamante ne bii dina jàppandi ba nga xamante ne bii vraiment euh, comme ni nga ko expliqué ne tenté nañu ko une fois deux fois doxul ñu xool beneen solution boo xamante ne dina tax boobu dox loolu rek la. waaw Pape Maguette maa ngi lay nuyu. Euh, di wax ci d' abord ci face à face démb bi d' abord li ma gis comme ay erreur maa ngi ci waxtaan membre CNG sàng nii man liñ ma ñaari mbir laa jokkul d' accord dama ca d' accordul règlement ko. mbër yi ñoom ñëpp ay am licence bu ñu dagg signature contrat nga bëgg a maye 15 personnes tegul fenn buñ ko waxee buñ ko waxee bu ñu waxul tegul fenn ñaari mbër toll tegul fenn la tegul tegul ci règlement tegul ci lenn te avenant bi ñun bi ñu signé ñun ménage yi dañu wax ni euh, mbër mi euh, deux personnes la am droit am lu war a àndal kon léegi mbër yi ñoom ñëpp ñoo am benn licence bu ñu dagg muy mu dugg bal kii kon li nga accordé ñële accordé ko ñeneen ci des benn ñu ngi leen may ay bëtër lu bis bi rëy rëy rëy rëy règlement règlement la règlement da nga ko appliqué pour ñëpp waaye 15 personnes ci benn signé contrat kooku ku ñu wax dëgg tegul fenn kooku dañ koo texeel yu leen neex mais fenn la tegul ñaar nit doy na loolu wërale ak dayoo làmb jëm toll bu ñu defee 15 personnes xam ñoo la gën a xam ne ñaar bi du ñeeg si loolu mën nañu wax dëgg ñu wax dëgg xalaat la jëriñ kon xanaa ñoom bu làmb ja ñaata personnes lañ la war a may xanaa 30 lañ la war a may 40 personnes bam màggat wax day gis nga mbir boo ko dee def da ngay ñeme li ngay def mais seen seen nag des fois ñun dañu gis des fois dañuy seen erreur ba pare ñoom du nangu seen lu gën a garaaw dañuy am ay erreur duñ ko d'accord lu wax ñun ñun des fois lu jop dañu ko dóor ñun wala ñu ne président écrit wala yooyu or que non ménager yi bu fekkee ñoom dañ leen déglu ñu war a dégloo problème mën naa bañ am mais des fois ñoom dañuy def seen erreur ba pare ni ménager yi wala ñu ne président écrit wala yooyu gisoo ne Modou Lo Ama Baldé problème la est-ce que sax bàyyi ko gënul parce que fi mu nekk nii man sama bopp dama cee beneen sax beneen beneen ma dool Pa Malick man yedduma leen ñoom ñaar premier bi yett naa ko parce que man bu ma seetloo ligue suñu xarit la ñun mais ligue damay xool gravisime kii yëpp amul benn signature boo xam amul problème gisaguma ko benn bu amul problème gisuma ko loolu nag war nañ koo wax parce que dafa am loo xam man man gis-gis bi ma am man jàpp naa moom mooy def bës boobu man li gëm laay wax de man jàpp naa ne ligue mooy def bës boobu du ci mbëri mbëri li ménagé man mooy kii mooy yore Modou Lo moo ko signé xam ne li lu nit ku jàll bind mënoo ma wax lu tax man loolu man ma ko accepté 15 personnes ci signature contrat face à lu tax ni Modou Lo ak kii ñu wax ñu naan ay exception la ñu ma leen ay encore loolu fu mu am amul benn bon solution bi daal mooy woo promoteur bi bu fekkee moom day def face à Gaston Mbengue da nga gis mu def face à mu am problème mais day jël responsabilité am mbëri ay nit lañ comme comme wér bis boo xam ne mosu fi am bis ñu bëri am bis bu ko bu ko raw a war a jël mën naa àgg man nañ koo def mais promoteur bi man ni ma xoolee affaire bi ni muy doxee nii vraiment affaire bandi laa yaakaar lay fexe ba am combat bi comme guerre seen combat bi est-ce que léegi du ñu ko bàyyi wala ñu wut beneen méthode face à face bu war a am. waaw ginnaaw bañ sant yàlla juli seen bi sant suñu ñaari waajur ñuy gërëm monde entier di gërëm euh, di gërëm ahlu làmb bon question bi nga pose dinañ sawar a tontu parce que des fois gars yi dañuy bu ñu xool tey moo Lo dafa nekk mbër boo xamee ne si. dafa compétir ba doon roi des arènes signé naa France maag Eumeu Sène signé naa Tamba signé naa Louga signé naa Mbour partout dans le monde def naa fa signature est-ce que mos nga dégg bruit heure bu ñu ma woowee damay ñëw maa ngi ñëw yëpp mais defe naa man tey sama image dama koy sauvegarder parce que Modou Lo sportif de haut niveau la ñu nangul ko ko donc tey bu ñëwee tey bañ koy agressé ci yoon bi am na droit ñibbi. ba pare daf maa woo ba ma woowee mu ne ma ana seen 800 policiers yi ngeen indi yi gars yi wax gars yi ñu ngi ñu attaqué fii maa ngi fii tout près maa ngi ci biir maa ngi gis 800. non xaw man gisuñu ko ba pare dañoo signé ne Modou Lo dañ koy sécuriser këram ba biir stade jëlee ko stade yóbbu ko këram donc man maa war a wax amul bu amoon dinañ ko indi pourtant am na ay policiers yu ci nekkoon donc. nañ ko def huis clos daal. la mooy solution pour Fass Abass. solution mooy nañ ko def huis clos. nañ ko def huis clos ñoom ñaar ñu yóbbu leen ci benn hôtel wala benn endroit ñu def fa signature. duñ ko yëgal kenn duñ ko yëgal kenn ñaari ménages signé ku nekk jël sa mbër yóbbu ko ñu jël seen responsabilité man man ma jël sama mbër jëlee ko këram yóbbu ko fiñ ma wax Abdou Bakhoum li muy wax yëpp su dee moom mat na ko na jël mbëram jël ko yóbbu ko fi promoteur bi wax kenn bañ ñu topp. ndaw ñooy mujj ci géew bi ñoom ñaar bu ñu waree bëri nag fii dina doy waar. du doy waar ndax dana am dinañ daje ci géew bi. gëm nga ne dana danañ daje ci géew bi li ñuy def nii yëpp ñun dérangé wuñu parce que yàgg-yàgg rek ñun dinañu tëj ak Ama ci géew bi waaw c'est tout. voilà waaw doomu Baye. làmb ji comme guerre duñ ko bàyyi benn yoon comme face à face mënut a am. Baye fitna fitna rek fitna fitna xeex xeex raag raag. non fitna amul Pape Maguette. léegi la mooy solution pour ñu def face à face ba bëre. gis nga nee cin su naree neex su baxee xeeñ. Eh, li muy xeeñ nag nii dafa doy waar de. waxal ndànk ah yi zaal bàyyi li ngay wax. xoolal euh, ki nga xam ne moo organisé lamb ji moom la booy jox benn message rek mu gën a fagaruwaat ndax euh, ku mel ni Ama Baldé ak Modou Lo combat fi taxaw yëpp mën nañ koo gën a seer. mais gën koo rëy amul kon bu ko xeeb jàkkaarloo Modou ak Ama ëpp na làmb war na gën a fagaruwaat pour bisu làmb ji entour stade mu jéem koo xool ni ko gérer làmb ji xaj na fi ça n'est pas ci ni rek. ça dépend si nit ñi tamit. supporters yi. non booy ñi ñi xam ne ñoo dëpp la Modou kenn amu ci vingt ans kon suñ ko liggéeyoon fi nga xam na mooy ëdëkaaba ñu baaree foofu. baare fi képp koo xam ne yoroo billet doo dugg kon Modou Lo dina ñëw ci jàmm mais ñu bàyyi Modou Lo kese mu dugg dugg Pikine lamb ju nekk dafa am nuñ koy gérer lamb ju lamb ju ndaw suñ ko ndawalee lamb ju am. kon sécurité bi am na tuuti faay si côté. sécurité ak promoteur soo ko organisé da ngay ñëw teew xool lu baax nga defar ko lu bon nga jën ko ca dindi. mais wax nga ci côté boobu lan ngay wax supporters yi nga xam dañu jëlee làmb ji ak ak xol def ko kom guerre. noo xam nga lamb léegi dafa rax rax waa football rax waa handball rax waa nawetaan da gis mbër muy bëre ñëw ko ñam koo xam ne bëggul làmb ñoo ne ko am biyeem damaa am làmb tey kooku bëggul làmb pour lu yàq pour mu yàq làmb daa yomb mais ki nga xam ne dafa jël biyeem xaalisam boo xam ne koo ñax du bëgg làmb ji yàqu parce que dama amee xaalis su méttee du bëgg làmb ji yàqu mais ki nga may biyee pour mu yàq làmb day yomb waaye asmaa ngi dégg mu naan ci digg géew xër gi xër gi dana la dal <laughs> arbitre sifflé na Pape Gouye Gui ak Karbala Pape Gouye Gui moo ñu wan ginnaaw Karbala moo ñu wan kanam Onde le Fou. waaw jàppante nañu Karbala bëri na fi woon ba am ndam. waaw Karbala Pikinois la. moom fii la dëkk seen kër soriwul stade bi bërekat la. kon buy ñëw stade day dox. waaw day dox mu dóor. waaw Onde le Fou Karbala. li ngay def moom la mën. waaw Karbala bu la jàppee day bëre Pape Gouye Gui jàpp na. Karbala jàpp na Karbala nekk mbër boo xam mbër bu endurant la tam. waa gis nga ñoom ñaar ñëpp nag ñu ngi teg bëre bi ci yoon. Eh, waa gis nga. moo daanu moo daan moo tànte action moo daan. moo daan boppam. parce que li muy def ñorul. waxoon naa ko na moytu Karbala parce que li muy def Karbala loolu la bëgg jàppante di bëri. mu def ñorul li mu def cabaxal bi ñorul mu dugal ko. waaw moom nangul na boppam sax xool ko ma ngay dem nangul na boppam ni moo def erreur bi. Karbala amatina ndam. ma nga noonu c'est un lutteur à suivre. c'est un lutteur à suivre am na ndam ñaari ndam ci année bi te sorantewul loolu stade ak. fu kenn dootu ko présenté ci làmb yow kañ ngay wér kañ ngay wér onde bu wér. waaw mënumaa wér maa ngi ñëpp sama lim national comme d'habitude laay Kapo Chérif Diène Moussa Yande Abdou Sembène Karbala suma xarit sama doomu ndey sama yaay nday Mari Géwél sama yaay Aminta Dramé sama yaay Mari Ginnaaw Raay UPD suma papa Gorgui Diop suma papa waaw Ablaye Diop maire Ginnaaw Raay ñu koy ñaanal yàlla. nga baax rek. comme Mati Thiam Dogo ah. <laughs> waaw la nga ni kan ngay wér ond la fuu la kañ wér. waaw mënu maa wér parce que juste que ni chaque damay gis loo xam ne nii lu ma naqari la damay gis lu ma naqari. yan moo lay naqari ba ngay fu. xam nga dof ni da ko war a faj mais nit ki buñ nangulee faj dof bi dof bi day mel ni moom day continuer di dof. ndax dof ràngatiku ndax dof feebar la comme sida yeneen jàngoro yi quoi mais juste que ñu ngi métti lu. li dal suñu président association muy mobile ñu koy ñu koy mettitlu parce que mënu maa comprendre yow état ak làmb ata état def lu dul yoon sippiwu ñu loolu état ñu sippi ko mbër mi nga xam ni moom moo waroon a bëre jour boobu. mbër mi dafa am lu mu def wala. non mbër mi deful dara jour bi nee moom la war a bëre ñëw na fii ba ngeem bu jugee seen kër ñëw fii war a bëre si ñu ni préfet bi moo bu kenn bu kenn bëree joxewul benn jemi te mbër mi ngemb na ba pare ñu toog benn un an deux boo xam ne dédommagé wu ñu mbër yi jox nañ ñëpp xaalis rappeurs yi jox nañ leen xaalis musique waykat yi jox nañ leen plus de trois milliards ñu jox ah, chauffeur de taxi yi jox nañ ñëpp askanu làmb dong lañ joxul mbëri toog bi muñ loolu. mais lan mooy problème mobile 2 ak léegi loolu loolu problème bi laa la bëgg a expliquer léegi mobile bi ñuy jàppaat date bi fekk mu war a dem voyage ñu woo ménager am ni ko da ngay waat benn contrat kenn du ko signé ñaari yoon mais dem na tukki. mais contrat dañ ko renouveler. waa mais kenn du ko amee dafa am benn empêchement bu am. waa mais bu fekkee ni moom ménager bi nanguwul signé rek problème am na kon contrat bi kiwul ba tey valable lul déjà comprendre nga mu dem ñu bëre ci ginnaawam mais pour man la meilleure fason du aj ko quoi parce que lamb dafa rafle ay mbër ndaanaa ni fi nekkoon yëpp voyagé nañ. ndaanaan yi nekkoon ci làmb daan dundal làmb ñëpp voyagé nañ lan moo tax ñu ñu voyagé kenn jéemu ko recherché kenn jéemu ko xam làmb mi ngi dee làmb amul xaalis parce que alxuraanu karim ñun ñëpp bu li ñuy fayeeku da nga naan ci kaw ñooy am xaalis non ñooñu dañuy raxas sax fi mu toll nii dañuy raxas ñooñu fi mu toll nii li fi def la ñuy waabaale dem parce que boo seetaanee signature Balla Gaye ak Bombardier bërki démb nga xam ne làmb amatul ampleur parce que Balla Gaye Bombardier a ngi kii na sinap Balla di fecc nga gis Gris Bordeaux ci wet gi. Eh, waaw bu neex la. non non déglu ma rek xam nga loolu amatul ampleur. parce que cité ngay wax ñooñu ñoo taxoon nit ñi di loolu ba lamb di am coow dëgg ak di am xaalis dëgg kenn nanguwul woon loolu mbëri nanguwul ñu woon sax pour di xaritoo mais CNG bi ngir yàlla ak yonent bi nañu gëstu mbër yu ndaw yi si tëbu ngor bërki démb dañ kaa dagg ba mu dese 2000 war a dem CNG jëli ji ko. 2000 francs Ada Fass bëre ba pare. ñu ne ay supporters am ñoo damm chaise yi dañoo téye reliquat am mu ñëw ni daf koy defar si ñu ni ko xaara ba ñu woola mu ne ñu ni ko xaara ba ñu woola ci ginnaaw si bi double moteur ñëw bëre si ñu damm ay chaise am dagg ko cinq cent mille mu leen jox leen ma sama xaalis dama cee am bor ñu ni ko defaral chaise yi ba pare mu ñëw ni di ko defar si ñu ni ko toogal ba ñu woola ci ginnaaw gi Siteu ak Papa Sow bëre nañ fi sànni ñu chaise yi kan moo war a defar stade bi stade bi ni ñu ko defaree nii bu fekkee ni baaxul ci ñun dañ kaa war a tëj bu saison bi jeexee ñu defaraat ko mais ñun làmb ji CNG yor ñun suñ bopp fi mu toll nii ñun mbër yu ndaw yi gisuñu ci suñu bopp ñun gisuñu suñu bopp metti na trop président CNG bi dafa war a xool li muy defaat. est-ce que yéen a ngi wut euh, demande d'audience ngeen waxtaan ak CNG ak jafe-jafe yi nga wax nii yëpp ngeen waxtaan ak. non mais boobu ba léegi ñu ngi yuuxu mais nawloo wuñ ñu gis nga làmb xam nga ñoo koy defar gis nga siège yi ñuy dem ak lépp bu ñu bëggee mu dakk xam na la ñuy def dañuy woo mbër yu ndaw yi ci seen wàllu bopp ni leen lan mooy problème ba seen moroom yi di def lii. parce que lii de ñii def lii doo fi gis benn paa buy sànni ay chaise wala demi paa benn xaaf paa du def. problème bi xam nañ ko. ñiy toj chaise. lan la def lu leen neex. non non parce que ay xale la lamb lamb affaire jeunesse la. mais da ngay jël jeunesse bi ci seen wàllu bopp seen moroom yi nga leen di laaj lan mooy seen problème mu moroom yi yéen lan lañ bëgg lan moo tax ñuy def lii lan moo tax ñu defalal leen nangam ak nangam parce que lamb dañ ko fekkoon ci ay bayaal indi ko ci stade tey stade bii nii stade bu mucc ayib la yaakaar naa ne stade lamb yi ko amu si lu am stade lamb bu mel ni mais buñ dee damm saisir rek yaa problème mais problème bi nag fan la nekk mooy ci nit ñi nit ñi mooy ñan xale yi mais nañ ñuy déglu ñun boobu ba léegi ñu ngi yuuxu maire bi daa am lu mu waxoon mu ni xale yi muñ leen bu leen juróon yërëm leen. aar mbay yàlla na ko yàlla may gudd fan. waa daa mel ni nag ñoom li ñuy jurul moo tax ñu ñu teg li ñuy teg mais métti na ci ñun torop amuñu liggéey amuñu benn métier làmb la ñu am. làmb bu yaaxoo ñun Pape Maguette xaw ma fu ñu jëm métti na trop président mobile mi ñu aj amaan ko 2 millions nañ ko bàyyi làmb bu fekkee ni président CNG mënu ko gérer nañ ko def fédération. waaw léegi kat mooy gérer boobu. non nañ ko def fédération kii na fi kii ñëw. mais nañ ko def fédération daa mel ni ki fi moo gën ki fi nekkoon. ah déet bu leen dugg ci waay naa mu xamee. ah xamoon nañ ko de. waa waaw dañooy ne ndeysaan moo fi gënoon. metti na torop metti na torop gisuñu gisuñu bopp. daa neex ci ñii naqari si ñii wala. non lambay commencé yàqu. lamb léegi day am ba pare kenn du xam kan moo doon bëree sax. loolu dëgg la. Balla Gaye bombardier mi ngi ñëw kenn xam kenn déggoo coow li dimanche samedi déggoo sax coow li lamba nga yàqu. te warul yàqu li waa ji wax la ni Sénégal ñaari ñaari affaire lañ keree muy ceebu jën ak làmb ceebu jën moom du mës a dee ndax boo demee kër Lebu yi fekk ko fa boo demee kër géwél xam ni ceeb Sénégal ko moom waaye làmb boo ñëwee arène nationale xam ni dee na. ñu bëri dañ koy ragal a wax ah, boo de boo waxee ñu ne la làmb deewul mi ngi dund. waaw parce ñoom ñu ngi ciy jëriñu mbër a ci jëriñuwul dara mbër chaque jour mooy pert mbër mu ñu dagg ba mu dese 2000. loolu yoon de. fan lañ jëm. gerte caaf de jaralul sax metti na torop barki Seydina Mouhamed. waaw léegi dama bëgg nga wéer nag après ah. waa sëñ Fallou. waa ñu ngi béggee ñëpp nag ah sëñ Fallou béggee nañ Pape Maguette. sifle na laaj na leen ba xam pare nañu naxaate ak Boy Sébi naxaate moo ñu wat ginnaaw moo gën a gàtt Boy Sébi moo ko sut ëpp ko. moo ko ëpp bopp ëpp ko tànk ëpp ko loxo ah naxaate dem na jëli ko dina ko nax wala du ko nax. dina ko nax wala du ko nax naxaate booy sebi naxaate booy sebi ña ngay naxante naxaate daf ko bëgg a nax booy sebi jàpp na mooy tul de da laa bëgg a nax e naxaate rëpp na defoon na flexion wàcce genou si suuf jàppante nañu amul round d'observation naxaate daf ko bal eh, tegal na ko chaise mag la bëggoon nax nag bëggoon na laa nax na ñor na ñor na ñor ceeb day ñor naxaate ràccaat na tegalaat na ko chaise deuxième fois daan na ko sans bavure vite fait rapidement fait daf ne ko niip jàpp ko. nax naxaate bëgg ko nax ñaari yoon far mu mooy ñu nax ko nax plus nax égal nax. bi copie kole ñaari photo la ndaxte mbër yi ñëw sutante ëppante caatu kayre moo gën a ngande astafurla moo gën a am yaram ngeen boo ngeen rouge blanc booy bisaaw moo féete ginnaaw mais booy bisaaw nag dafa mën a bëre pied gauche booy bisaaw bisaawoo boobu noonu ca créole la ah caatu kayre tànk day joor door na ko duma ko ah bul naagu de booy bisaaw daa mën a de bul jaay na yaa ëpp doole de attention dugg na ko jàpp na ko waaw waaw avec la manière avec la manière il s'est imposé avec la manière waaw maa la sut maa la ëpp doole dama lay door jàpp la daan la c'est logique tooj na ko tingoom tingoom na entraîneur ba caatu Kayré très physique xam nga ne kii daa am doole xoolal ko ci li muy def ma ni ma ngay sangoo ndox mi waa lii mënees na koo gis. bi sifle ak Macha Saba moo ñu wan ginnaaw Macha moo ñu wan kanam bu écurie Waalo ñoom ñaar ñëpp ci victoire la ñu jugee ñu ngi leew too ñoom ñaar Gibson production tuddee ko Pape Modou Mbaye rakk ci Modou Mbaye félicitation yàlla na la jik doomu HB gaay buñ ko tuddee làmb dagan na Saba moo ñu wan ginnaaw pied droit tànk ndeyjoor Mathieu pied gauche ñu ngi leew too ñoom ñaar nee na ñu tekk ñaari mbërëntaan lañu ñoom ñaar ñëpp ci ndam la ñu jugee ñoom ñaar ñëpp ci ndam la ñu jugee ñu ngi leew too ñoom ñaar round d'observation Saba mi ngi sànni da ngay woo ci xeex mais Macha mi ngi leen teg ànd ak ñoom Papa Boy Djiné ñoom Rone ñoom Liiru ànd ak euh, Alioune Seye numéro 2 Macha moo wan kanam Saba yaa ngi bëreeg mbër bu doy waar yaa ngi bëreeg mbër bu seytaane yaa ngi bëreeg mbër bu mën a bëre arbitre assistant bi déplacé wu na Saba nee na teg Saba waa lii moo ko jik teg rek teg rek ngay mën a def. Mathieu gàtt saf la tëb dafa mën a ñoom ñaar nee na ñu teg round d'observation round d'observation ñoom ñaar Saba dóor na Mathieu def na benn déplacement latéralement côté ndeyjoor effacé dóor bi waa loolu d'accord na c'est technique et c'est tactique Saba wàccaat na tuuti ba tolloog moom waa Mathieu daa gàtt pigeon yaa ngay naaw nag ay pigeon ya dem nañ nag pigeon yi sànq ba tey naawuñu bi arbitre bi sifflé ba ñu commencé bëre la ñuy door a ximmaliku dañoo réeroon ximmaliku nañu pigeon yi dañoo réeroon ña ngay wër ñëwaat nañu Saba door na Saba mi ngi dox ci kawam Mathieu def na déplacement génn na fa mu taxawoon Mathieu sànni na waat benn gauche remplacé na Saba Saba ñëwaat na sur sa position sànni na Saaba day yóotu Saaba jël na tànk yaa rëpp na daanu nga Saaba attention jeex na Saaba Saaba da ngaa réer Saaba da ngaa fàtte concentration da ngaa tàggalikoo concentration Mathieu trompé na la waxoon naa la da nga war a concentré wu Mathieu ngaa ngi noonu ay waay sóoraale leen Mathieu waay. ay e waay sóoraale leen Mathieu waay ay e waay Saba am na lu ko métti waay daa wu ba ci biir déconcentré wu Saba da nga waroon def ndànk manque de concentration dafa déconcentré wu